waaye yéene gi ñu am ci ñun cofeel gi ñu am ci ñun yërmande gi ñu am ci ñun moo tax ñu jël ab gàtt ne kii maa ko may Ousmane Sonko yal na leen ko yàlla fay yàlla nañ ko fekk déwén yu bëree bëree bëri ba ñu mën di continuer di ko defanee nii ndax sénégalais teranga la xam sénégalais séddoo la xam sénégalais bokk la xam sénégalais yërmande la xam te feetu tabaski di feet boo xam ne feetu seddoo la feetu teranga la feetu bokk la feetu yërmande la moo tax loole nga xam ne jox ngeen ma ko moo xam ci ay gàtt la moo xam ci xaalis la am na lu ma ci jël tuuti rek lu méngook li ma soxla man la ca des nag ma seddoo kook Sénégalais yi parce que loolu mooy li ñu xam ñun amaana ñoo xam ne yelloo nañ ko te nekk ci ay jafe-jafe su dee sedd nañ ma man lu ëpp sama soxla ma dellu seddoo kook Sénégalais yi loolu lañ ñu jàngal ci loolu lañu ñu loolu mooy suñu réew te ngalaay bu ñu ko dara yàqal gàtt yooyu nag nga xam ne yónnee nañ ma ko da cee am lu ma ci jël li ma leen wax mu méngoog sama soxla te dinaa ci joxe benn misaal rek ndax lu sori la ci man lu tooyal sama xol la mooy gàtt gii nekk sama gannaaw kii mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafete gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacke yal na ko yàlla yokk wér-gu-yaram yal nañ ko fi yàlla bàyyi lu yàgg yàlla na ku yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gii keroog bi ma señ Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam ne la koo jagleel waaye gàttuk barkeelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ne ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi ma ñëw jëlsi ko ma yónnee oto mu jël si ko mu ne ma déedéet moo koy dawal moo koy dok dugal ci oto andi ko ba si sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt bi nga xam ne moom lañu fas yéene bar barkeloo rek ni ko sëñ bi waxee nii mu ko defee du gulleet wax naa ko ndax defaat na ko keroog bañ may agressé ci corniche ba ba tax ma mujj nekk ci hôpital tëdd fa ay fan doon faju dafa yónni sëñ Abo jox ko enveloppe boo xam ne un million moo ci nekkoon ne ko nee ko enveloppe bi ñaan la ne ko téye xam naa li may wax nii sax bëggu ko ndax bëggul ñuy wax ci jëfam muy woon it lu tooy sama xel sama xol car may génn ci hôpital ba ci enveloppe boobu laa sàkkee bi ñu ma defaree sama facture muy sept cent et quelques mille ma fayee ko kon maa ngi koy yokk ñaan di ñaan sénégalais ñu ñaanal ko ba lépp loo xam ne ay naalam lañ ak ay mbébét yàlla na ko yàlla yombalam ànd ak nag saa suñu gisee maag moom su ma demee seeti ko bu ñu waxtaanee bu may dem dugal sama loxo ci su may dugal sama loxo ci poche mu ne ma sa loxo boobu de bu mu génn ndax yow man maa war a sàkk di la jox di la jàppale waaye yow waroo yëkkati di ma jox kon jërëjëf Mbàkke suñu xol sedd na noonee ñu ko seddalee suñu xol seddee sëñ Abdou Mbàkke bi nga xam ne wax naa leen taxawaayam yeneen gàtt yi ngeen gis ni yépp ci loxoom la jaar moom it ba egsi ci man ak ay koppar yoo xam ne jaar na ci loxoom egsi ci man suñu nit ñu baax ñooñu yàlla ñu fi yàlla bay naka noonu it e, yéene gi nga xam ne ba léegi sénégalais nga ko am ci ñun ma lim ci de lenn ci ay kilifa ni ma ko waxee ci sëñ du Mbacke sax mu noon ko wax ci ñeneen ak ñeneen noonu la amee ci suñu kilifa suñu sëriñ suñu xarit suñu wëlëre di sëñ Fàllu Chouaïbou sëñ Fàllu Mbàkke ibna sëñ Chouaïbou Mbàkke nga xam ne yéene bi ñu bari am ci ñun rek te yëgowuñu ko moom la am ci ñun ba tax mu tànn ab gàtt goo xam ne bu mat lañ ko doyale ci bés bu ni mel gàtt goo xam ne moo ko yaral boppam yafal ko ba mel ni mu mel mu yónni ab ndaw ne ko ñëwal jël ko dem yéetal ma ko Ousmane sonk yooyu ji ay gest yoo xam ne daf ñoo touché ndax suñu kilifa yooyu yëpp ñu di jël di dem di leen jox ndax xam nañu seen njaboot ni mu toll xam nañu seen euh, charge ni mu toll koo ci gis rek li mu yor ci ay nit yu mu yor ci ay daara li mu yor ci ay ndongo yu nekk ci biir ay daara te kenn génn ci dem sa yelwaan ñoo leen di jox ndékki añ reer ñu waroon di comp ñun di leen jox waaye ñu am yéene yu rafet yu mel noonu ci ñun ba saa su dara amee ñu yëkkati seen alal wala yëkkati seen matériel daal ñu ciy xalaat daal teg ci loxo nit mu ñëw ñu jàpp ni nag loolu ëpp na ab gàtt gu ñuy maye rek waaye ab barke layut goo xam ne ñu ngi koy teg suñu loxo di ñaan yàlla yàlla nangu ko yàlla sàmmal ñu leen yàlla wattul ñu leen yàlla may leen yokk leen wér bu yaram yàlla bàyyil ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen lim ndax ku lim juum ay léeg dangay seppi rek joxe quelques exemples mbokk yi tabaski feet bu rëy a rëy la waaye nag nañu fàttaliku lan mooy cosaan ba kenn ku ne bu demee ba tër xalam teg paaka war naa xalaat lan mooy cosaanu tabaski ñu war cee jàng jël jëlit ay jàngat yu am solo sama àll ba nag soriwul moo tax suma ma juumee suñu nit ñu baax ñoo ñuy déglu ci rajo yi mu fassirun yu mag yooyu ñoom Oustaz Alioune Sall ñoom Serigne Iran Ndaw ñoom Oustaz Tayib Socé ñoom Oustaz Assane Sarr ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu gën a xam téere bi di ñu ko jàngal ay at yu leen déglu su ma juumee rek nañ ma gàgganti te xam ni politicien bu soblaa rek ba di wax ci lu lu lu xaw a lu ko xaw a sori waaye tabaski cosaan bi mu ngi jóge suñu maam Ibrahim ak doom ju baax jooju nga xam ni mooy Ismaayil ñëpp xam ne Ibrahim dafa dund ba nekk mag torop te yàlla may ko doom muy affaire boo xam ne ñëpp xam nañ ni kuy dund rek ñaan nga yàlla sanc kër jël soxna te gannaaw boo jëlee soxna ñaan nga yàlla mu may la njaboot moom mu doon yonent nag dund ba nekk mag a mag a mag yàlla mayu ko donc muy waaraate lépp mu teg ko ci taw tawhid delloo ñu ñi ci yàlla kese ba ay mbokkam mere ko fexeel ko ci gët bi gën a fës ci pexe yi mooy biñ ko jëlee yeew ko sànni ko ci safara ngir safara lakk ko yàlla ne safara ji kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ne ko yow safara